ci beneen plateau. Maurice eh, Soudieck Dione Chérif eh, mooy suñu invité professeur agrégé en sciences politiques ñu mën ko eh, ci plateau yu télévision Futurs Médias. Fatou ni nga ko waxee noonu la ñëw bi nag wute naa xëy na ak ñeneen ñi ndax professeur bu fi daa ñëw daaw dégg grade professeur wante depuis semaine bi kon moom professeur agrégé la ci wàllu science politique li ko waral mooy. concours agrégation bi amoon fële ca Cotonou moom da ci admis moo tax dañ lay féliciter déjà professeur tàmbale ci université ba nga représenté woon muy gason Berger ndax fa ngay jàngale gis nañ recteur bi daf benn communiqué ne bu dee concours d' agrégation la ñoom am nañ 60 pour cent at mi euh, muy loo xamante ni rafetlu nañ ko nu ngeen dundee yéen ñi nga xamante ni kan yéen a teewaloon université Gaston Berger euh, saa kër boobu fële ca Cotonou. waaw ni ñu ko dundee euh, dañu rafetlu kaddu yi nga xam ne moo tukkee ci ki nga xam ne mooy recteur université Gaston Berger bu Saint-Louis di sant yàlla itamit bi nga fekk bi nga xamante ne may nañu ndam ci li nga xamante ne mooy concours le di ñaanal ñi nga xam ne itamit jàlluñu beneen yoon yàlla defal leen ndam. Mhm. mais bu ñëwee sa domaine muy science politique ñeent ngeen woon yow yaa ci admis. waaw euh, ñeent la woon yàlla dogal na man ma si admis woon. Mhm. résultat yu baaxul de. résultat yi nag mënoon na gën a baax ndax euh, ci 15 yi nga xamante ne ñoo représenté woon Sénégal muy droit publique droit privé histoire du droit ak science politique euh, ñett rek ñoo si mujj jàll. lu waral loolu nga gis-gis. li waral loolu xëy na mën nañu gën a ñoŋalaat préparation bi. Euh, maanaam tàggat bi nga xam ne moom la ñu tàgg war a tàggat ñëpp ñi nga xamante ne wax nañu dem ci jongante bi euh, jële ko nag ci li nga xamante ne mooy euh, article maanaam këyit yi nga xam ne ñu ngi koy bind di ko publier muy ay article scientifique ci foofu war nañu xëy na gën a Euh, taxawu ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, kuréel yu euh, ci institution yi mooy enseignants yi université Gaston Berger am nañu centre buy toppatoo lépp loo xamante ne pédagogie universitaire la wante sax mën nañu gën a yokk li nga xam ne mooy entraînement yi yokk préparation yi yokk itam ñi nga xamante ne ñooy encadrement yi te ci loolu mën nañ gis ne bu ñu génnee même université Gaston Berger de Saint-Louis université Cheikh Anta Diop par exemple la plupart des professeurs maanaam professeurs yi nga xamante ne ñoo gënoon am expérience gënoon xarañ ñoom ñëpp pratiquement dem nañu retraite ñu ngi mel ni euh, ku ci mel ni professeur Serigne Diop euh, professeur euh, Isaac ba Ndiaye professeur El Hadj ah, Mbodj. jaw ba am ñu leen remplacer. préparer nañu relève bi mais ñoom seen expérience seen xam-xam université daf ko soxla bu léegi kon war nañu fexe ay lëkkaloo yu ñu def moo nga xamante ne professeurs yooyu dinañu euh, wéy di mhm. encadrer ak di gën a euh, toppatoo ñi nga xamante ne ñooy euh, jeunes chercheurs yi. parce que lu toll ni université Gaston Berger daanaka léegi tey mu am fanweeri at Cheikh Anta Diop ëpp na ko. ngay wax waxu préparation lan moo tax ko expérience bi nam ak surtout fac droit gis nga ko bu ne droit public kenn admis wu ci loolu quand même ñaaw na ci daru Sénégal waaw mais préparation boo déggee préparation mooy préparation ci wàllu euh, agrégation parce que agrégation concours bu métti la dafay am une dimension physique une dimension psychologique et même une dimension émotionnelle maanaam dañ lay natt ci fànn wu nekk natt la ci ki nga doon natt la ci jàngalekat bi nga doon natt la itamit ci gëstukat bi nga doon kon loolu yëpp buñ ko boolee dafay nekk lu concours bu métti euh, première épreuve bi yaa ngi def euh, say travaux yëpp maanaam say thèse ak say article yaa ngi koy présenté ci 15 minutes 15 minutes yu warul weesu une seconde. nga def ci ye beneen après boo admis boobu nga dem ci euh, première leçon bi mu nekk commentaire. Mhm. première leçon bi euh, di nga présenter en loge pendant huit heures dañ lay tëj ci bibliothèque pendant huit heures. Mhm. boo paree nga dem présenter sa leçon pendant trente minutes trente minutes yi warul euh, ëpp warul yees warul weesu une seconde. Mhm. loolu yëpp lu ci ne mën nañ la ci. Euh, mën nañ la ci éliminer wala mun nañ ci wàññi say poñ moo tax mu doon concours boo xam ne dafa jafe dafay laaj ay euh, ay paramètres yu bëri moo tax euh, encadrement ñi nga xam ne ñooy anciens yi am expérience am xam-xam am solo ci loolu. Mm-hmm. Souleymane. waaw gàtt rek professeur gannaaw bu ma la félicité nuyu la. benn bi mooy da nga suggéré ñu xool nan la ñu capitaliser davantage ci expérience professeur yu mag yi nga xam ne. Mm-hmm. dañoo dem retraite nan concrètement euh, yan proposition nga am ban statut lañ leen di jox pour ñu mën a def liggéey boobu. beneen laaj bi moom mooy euh, gannaaw bi nga amee agrégation lan lay changer. ci agrégé bi lan lay changer ci carrière am lan lay changer ci dundinam lan lay changer. ci euh, yëngu-yëngoom. waaw benn bi moo di xam nga professeurs yi bu ñu demee à la retraite à 65 ans léegi bu yàgg ba dañ leen doon defal ay contrat prolongation léegi contrat yooyu Euh, état bi nee na dootu ko def te luñ lu ñu mën a nangu la ndax euh, euh, retraite professeurs yi fi ne nii def nañ ci ay jéego yu rëy kon war nañu may ñi nga xam ne ay jeunes la ñu itam ñu mën a dugg am liggéey kon loolu lu ñu rafetlu la mais mën nañu def ay yenn contrat yoo xam ne ñi nga xam ne dem nañ retraite mën nañ leen def professeur émérite mm. xool nan lañ leen di dugalayte dugalaate ci système bi ba nga mm. xam ne ñuy wéy di jàppale jeunes chercheurs yi beneen laaj bi nag agrégé pour si sama gis-gis du soppi dara ci sa dund nit ki nga nekkoon moom ngay wéy di doon ndaxte Socrate dafa ne woon euh, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien l'ignorance qui se saisit comme ignorance est une posture épistémique qui nourrit la du savoir maanaam ki nga xamante ni dafay gëstu dafay jàpp saa su ne ne euh, amul xam-xam ñàkk ñàkk gi mu xam ni amul xam-xam moo koy puus muy gën di gëstu ndax ki jàpp ne xam na dootu gëstu loolu moo tax euh, dañ koy jëlee ak philosophie euh, gën a ab sonj la ab encouragement la liñ doon def benn ñu fexe ba gën ko yokk def ko fukk wala lu ko ëpp mm-hmm. Cheikh Tidiane euh, agrégation bi du wàññi dara Euh, mais soo xoolee ci wàllu qualité enseignement bi est-ce que résultat yi ñu gis euh, dañu jàpp ni que demeewul comme ni ñu ko bëggee woon est-ce que loolu quelque part justifié wu nit ñi di wax ni que niveau euh, enseignement bi dafa baissé te mu am répercussion ci étudiants yi. jàpp naa ni en suñu enseignants yi ñu ci gën a bëri ñu xarañ lañu am nañu potentiel bu rëy. Mm-hmm. mais ni ma ko expliqué sànq agrégation dafa laaj ay règles maanaam boo ñëwee. bu say boo siraasul say dàll ba mu ba muy melax sax mën nañ la ci éliminer mbaa ñu wàññi say poñ hmm. bu karawaat bi dëngee mën nañ la ci éliminer <laughs> donc yooyu yëpp di dinañ xool yow kan nga natt la ci fànn yu bëri nee naa la booy présenter sa leçon boo passé une seconde mën nañ mën na wàññi say poñ 30 minutes la boo defee 20 minutes 25 tu es éliminé donc li mën a tax ñu éliminer nit lu mën na doon lu sew mm-hmm. mais yàqul mérite ci xam-xamam ak ci méritam mm-hmm. parce que c'est un ensemble de règles yoo xam ne c'est très contraignant dañ lay euh, genre rite initiatique la day mm-hmm. mel ni genre initiation quoi loolu aussi lu jara bàyyi xel la moo tax encadrement ñi nga xam ne ñooy anciens yi am solo Mm-hmm. sauf que gisoon nañ fi président jury quand même ñaar yi surtout yéen bi leen concerné muy euh, science juridique ak politique ay sénégalais lan muy Ismaïla Madior Fall loolu am na lu mu joué ci seen euh, prestation euh, ci sama gis-gis jury bi jury international la ay professeurs yu mag yu xarañ lañu fa yóbbu yaakaar naa ni mbir mi mbiru Euh, jàng la mbiru xam-xam la wante itamit mbiru maîtriser règle yi nga xam ne mooy règle concours bi la mm-hmm. mais jury yi c'est des jurys internationaux avec des professeurs de grande qualité waaw yeneen ñaari laaj yu gaaw rek mm-hmm. euh, benn bi euh, mu ngi jëm ci article scientifique yi nga doon wax yi lan moo waral mu am tuuti gàllankoor ci production article scientifique yi est-ce que problème publication la est-ce que problème support de publication est-ce que am temps def ko la est-ce que am ay sujets yu pertinent la et cetera ça euh, benn benn benn laaj la beneen bi moo jëm ci. ban njeexital la nombre de euh, résultat ci agrégation ban njeexital la mën a am ci classement université yi parce que xam nañ ne aussi université yi bu ñu leen di classé au niveau mondial yooyu yëpp ay paramètres la nombre de professeurs agrégés nombre euh, de de de prix Nobel ak yi ni mel euh, est-ce que dina am njeexital ci classement université Sénégal yi notamment en Afrique waaw ci wàllu publication euh, dëgg la amul publication yu yu bare noonu. Mhm. Euh, wante itamit euh, pertinence su sujet yi comme ni nga ko waxee loolu yëpp dafay indi aussi encadrement c'est-à-dire nga mën a balaa ngay présenter ay articles nga waxtaan ci ak ay doyens ñu wax la ne ah CAMES ñoom nii la ñu bëggee par exemple. Mhm. ñoom dañu bëgg nga nekk dans la recherche fondamentale. Mhm. maanaam di conceptualiser par exemple boo jëlee loo xamante ne da nga ko def ci wàllu consultance nga bëgg ko traduire def ko article scientifique généralement duñ ko nangu parce que euh, construction lañ lay laaj maanaam nan ngay wone sax xarañ ci wàllu recherche fondamentale maanaam xam-xam boo xam ne xam-xamu université la mais du nekk par exemple xam-xamu technique boo xam ne xam-xamu expert lay doon waaw loolu aussi lu lu mot a bàyyi xel la euh, beneen bi euh, yaakaar naa mooy wàllu classement université yi je pense que agrégation système francophone la alors que classement université yi c'est classement mondial donc agrégation bi dina ci compter mais itamit nombre de publication yi ak support de publication yi mooy gën a tax université di rayonner parce que université recherche moo ko yore mhm. mais itamit li nga xamante ne mooy suñu réew yi nga xam ne dañu nekk ay réew yu amul doole nekk ay euh, pays en développement recherche daf ci am solo parce que recherche moo moo téye développement cest à ban euh, façon nit la war a am ban façon ressources yan ressources humaines la ñu war a former. Mm. ngir ñu développer réew mi yan secteur la ñu war a euh, gën a sukkandiku ngir développer réew mi loolu yëpp recherche. mais budget recherche nag d'habitude day faible dafa bari <laughs> waaw budget recherche day faible moo tax ma ne euh, loolu suñu problème la ci pays Afrique yi en général pays en développement yi mais mm. surtout Sénégal. Mm. cest dañu war a xool lan la suñu ay moo ci war a tax baal ma euh, Maurice lan moo ci war a nekk taxawaayu autorité yi. pour gën leen dooleel quand même les chercheurs. waaw loolu mooy il faut un financement de la recherche maanaam ñu jox rechercheurs yi ay moyen et aussi lëkkale ñi nga xam li nga xam ne mooy politique ak gëstu. Mm. cest à ñi nga xam ne ñoo ne ñoo ŋànk nguur gi war nañ mën a wax ne ñun. tel type de sénégalais la ñu bëgg ñii ne par exemple tel objectif la ñu bëgg dans l' dans l' industrie et cetera léegi ñu jël université yi xool lan la ñu mën a produire ci xam-xam ngir ñu mën a réaliser loolu. Mm-hmm. loolu boo xoolee aussi réew yi développé yëpp noonu lañu def. mu mm-hmm. France ak feneen toujours euh, recherche mooy dundal développement. mooy mooy tabax réew. mooy tabax aussi ñi nga xamante ne mooy ressources humaines. et beneen mbir bi ñu gis également mooy euh, instant benn benn moment dañuy génn Sénégal dem ci yeneen réew c'est-à-dire euh, euh, gis nañ ci ñu bëri ñoo xam ne tey ñi ngi États-Unis mm-hmm. voilà ñi ngi ñi ngi Europe ñi ngi ay ay pays yoo xam ne ñooñu mën nañoo ŋànk peut-être fii suñu recherche euh, wàllu recherche ak développement fii Sénégal est-ce que aussi foofu autorité autorité waruñu def ay jéego gën leen encourager ñu dellu si waat waaw yaakaar naa ne euh, autorités yi def nañ quand ay jéego yu rëy. ci mm. wàllum euh, defaraat li nga xam ne mooy condition d'existence condition matérielle u enseignants yi Euh, loolu maître Abdoulaye Wade dox na ci ay jéego yu rëy. Mhm. Euh, maître euh, président Macky Sall itam bi mu ñëwee am na lu mu ci def. Mhm. donc ci wàllu boobu yaakaar naa ni am na jéego yu bëri yoo xam ne ñu ngànk nguur gi def nañ ko ci wante mën nañu yokk li nga xamante ne mooy moyens yi ñu jox université yi. Mhm. surtout am ay laboratoire et puis problème yi nga xam ne mooy problème mu état bi ci wàllu mu ne objectif yi état bi am yëpp. ñu xool nan lañ koy lëkkalee ak université yi. ngir université joxe xam-xam bi ci war ngir réew mi mën a gën a jëm kanam. Mm-hmm. politique professeur bon ñu jeexalee foofu voilà euh, naka nga jàngatee crise globale des études en général ci ci euh, université Sénégal yi surtout lu jëm ci wàllu étudiants yi. waaw crise université en général dafa ci euh, benn problème la mooy am na. pendant longtemps nguur gi da dafa dafa doon dooleel enseignement primaire ak enseignement secondaire. Mm-hmm. fàtte ne ñi nga xamante ne dañu am bac mm. dañu am vocation pour dem université loolu nekkoon un premier problème deuxième problème bi mooy dañu dem ba jëmmi jamono gis ne euh, offre d'enseignement supérieur bi dafa néew par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo war a jëm université mm-hmm. mu indi li ñu naan la massification massification maanaam jël université yi yen leen yen boo xam ne attanuñu ko ci wàllu euh, ndongo yi nga xamante ne ñoom la ñu war a tàggat ci xam-xam loolu nag moo taxoon euh, massification boobu am ay njeexital yoo xam ne mënoon na ñàkk ci enseignement bi wante euh, ñi ngi jéem di ko jubanti te war nañ ci gën a par exemple université Gaston Berger de Saint-Louis université d'excellence la foofu daf dañ doon tànn bu baax ñi nga xam ne ñoo fay dem léegi bi ñu demee ba nga xamante ne ñi nga xam ne am ñu bac dañu bare te amuñu fu ñu leen dugal nguur gi ne il faut que université bi def ay effort def ay jéego yu rëy ci wàllu woowu wante moyens yi euh, toujours ça ne suivait pas loolu taxoon mu am ay jafe-jafe. Malick. Mm-hmm. bu la nañ dugg ci aspect question politique mhm. aussi je mhm. pense. waaw question question politique euh, naka nga euh, jàngatee wax dëgg yàlla élection yi nga xam ni ci la ñu euh, dëgmal nii ak lépp li nga xam ni moom moo ci xew ci wàllu dépôt liste yi ak yi ak mbiccoog mbaaloo bi am ci diggante administration territoriale ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu wàllu yoon. waaw xam nga li nga xamante ne mooy état de droit dafa am solo ci am réew maanaam euh, dañu ne kenn amul sañ-sañ ñu tooñ la nga fajal sa bopp kenn amul sañ-sañ jëfandikoo violence ci euh, say euh, jëflante ci say lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom nga bokk réew mi loolu bu amee kon ñi nga xam ne ñooy mooy justice bi ñu fi mbaxanee nekk benn war nañu tëdd njaaxaanaay ba nga xam ne ku ñu tooñ boo fa demee ñu daldi lay atte ci anam yi gën a rafet ci anam yu tegu ci dëgg tegu ci yoon kon euh, loo xamante ne recours yi nga xamante ne opposition bi def na ko ay recours yu ñu rafetlu la wante itamit nañu moytu euh, delloo Sénégal ginnaaw parce que am na loo xamante ne ñi ngi ko ñi ngi ko amoon depuis 1978 boo jëlee le contentieux de la Cour suprême 1978 dañuy gis ne léeg-léeg autorité administrative yi dañ daan dugg ci bureau de vote yi bu ñu duggoon ci bureau de vote yi surtout ci réewu Euh, kaw yi nit ñi dañ leen daan ragal donc bu ñu bu kenn du ñemee woote opposition waaw mm-hmm. ah, loolu dañ leen doon fitnaal dafa meloon ni nguur gi maanaam parti bi mm-hmm. dafa lëkkaloo ak état bi mm-hmm. te loolu dafay nasaxal ay institution réew mi bu fekkente ne léegi nag dañu dem ba mu mel ne loolu mooy delloo si waat war nañu dellu si waat war nañu delloo si xel yi parce que parti état dafa dellu si waat parti état non dafa mel ni mën nañu yaakaar ne loolu moo dellu si parce que boo gisee taxawaayu yenn autorité administrative yi ci ni ñu leen di gisee ci représentation parce que loolu aussi dafa am solo ci am réew maanaam ni nga xamante ne moom la ñu gisee institution yi c' est pas pour rien que euh, professeur bi di sol robbam c' est pas pour rien que bi aussi sol robe est pas pour rien que euh, médecin bi yore blouse am et cetera est pas pour rien que policier bi wala gendarme bi sol tenue donc euh, institution li koy jëmmal li koy dëgëral léeg-léeg loo xamante ne la c' est immatériel loo xam ne kenn mënu ko làmb daj ko kon ci kaw loolu ci kaw li nga xamante institution yi dañu war a moytu euh, askan wi yaakaar ne ñi nga xamante ne ñoo fi war a toogal état bi dañ fi toogal benn parti mm-hmm. ah, juste justement monsieur Dione euh, implication ministre de l'intérieur ci processus bi ba ñu bari jàpp ni sax yooy jugé parti pris en même temps surtout ci wàllu recours yi parce que jàpp nañu loolu day biaisé euh, processus électoral waaw xam nga li nga xamante ne mooy sécurité kaaraange moom mooy au cœur du contrat social contrat mm. social boo ko jëlee depuis Hobbes depuis Rousseau euh, depuis Montesquieu mooy li nga xamante ne mooy euh, kaaraange mooy ndeyu ak ak yelleefu doomu aadama yi mm-hmm. donc kaaraange mooy defar suñu nekkin defar ko ba nga xamante ne euh, dinañu mun a dund dund bu rafet tegu ci dëgg tegu ci yoon ba ki nga xam ne ku ki am doole du lor ki amul doole wala ki nga xam ne dafa am xelum caay-caay du lor ay moroomam loolu mooy état de droit loolu mooy contrat social moo tax nag ci loolu dafa am ñetti ministère yu am solo benn bi mooy ministère de l'intérieur ministère des forces armées ak ministère de la justice ñetti ministère yooyu dañ leen war a euh, yore ci yorin bi nga xam ne moo gën a dëppoo ak sartu république buñ ko deful rek dañu fowe réew mi te fa ñu jëm mën na doon loo xam ne dafay nasaxal ministère yooyu ñi ko yor à part ministère de l' intérieur bi nga xamante ni officiellement waxul ni bokk na fenn ci parti mais forces armées justice moom APR la bokk leer na non euh, en fait seen bokkum APR ak wala feneen warul tax mu yàq lenn ci li nga xam ne moom la ñu war a doxal ngir teg réew mi ci yoon parce que loolu bu ñu ko defee réew mi la ñu menacé c'est ça moo tax se doon wax ne la somme des rationalités individuelles n'est jamais égale à une rationalité collective bu fekkente ne dañu bokk ñëpp ñu wax nekk ci benn jotaay ku ne bu war na bëgg bëgg na wax mais bu ñëpp di waxandoo kenn dootul dégg bu ñu nekkee ci salle cinéma euh, kenn jóg pour xool moom mën na yaakaar ne bu jógee dina gën a gis mais bu ñëpp jógee kenn dootul gis dara. Mhm. donc intérêt général bu ñu ko déggee. intérêt particulier bu ñu ko déggee. dafa fekk mu am intérêt général bu ko lal. Mhm. am na phénomène bu bees nag euh, gis nañ sax journal Le Quotidien ñëwaat ci muy yaa ngi wax ne magistrature ay magistrats yu politique. Amadou Lamine Dieng mi nekk maire bu Wakunguna gis nga ko bu dee Cheikh Issa ca Mbour te dellu si Benno Bokk Yaakaar tey sax euh, cour d'appel bu Thiès war na koo déglu jëm kon ci recours bi nga xamante ni am na ñu ko def jàpp ni mënoo nekk magistrat pare di politique rawatina bokk ci parti. non loolu dëgg la mënoo nekk magistrat di politique parce que. Euh, ñaari pouvoir yu bokkul la. Hmm. kii pouvoir dañu ne euh, séparation des pouvoirs maanaam dañu xaaj ñi nga xam ne ñoo nekk exécutif ñi yore législatif ñi yore judiciaire lu tax ñu xaaj pouvoir yooyu parce que dañu jàpp ne euh, nit koo xamante ne dafa yore pouvoir léeg daf ci faral di ëppal ndax pouvoir dafay yomba dafay yomba jaxase. xelu ki nga xam ne moo ko yoree moo tax dañ ko war a xaaj ci ay pàcc yu bëri ba nga xamante ne du doon euh, luy menacer maanaam lu mën a gàllankoor ak ak yelleefu doomu aadama yi mm-hmm. donc séparation des pouvoirs yooyu moo tax président de la république par exemple mënul dugg assemblée nationale te amu ci autorisation mm-hmm. séparation des pouvoirs boobu moo tax euh, juge yi waruñu joxe waruñu euh, def de règles waruñu construire des règles de droit même si mën nañ am une jurisprudence prétorienne maanaam en droit pénal l'état de nécessité c'est maanaam koo xamante ne dafa jël lu mu moomul mburu bu mu moomul pour lekk parce que dafa xiif kooku état de nécessité la loolu jurisprudence moo ko moo ko tëral mais amuñu droit euh, nga nekk juge di di di di mel ni da ngay tabax ay loi loolu assemblée nationale lañ ko jébbal. assemblée nationale itamit amul droit justice bi di def liggéeyam mu wote loi boo xam ne dafay gàllankoor li nga xam ne justice moo koy def kon séparation des pouvoirs bu fekkente ne da nga nekk euh, ci euh, ci justice bi nekk magistrat ba noppi bugg a nekk politicien loolu dafay gàllankoor li nga xam ne mooy institution bi. parce que mm. dafay indi benn confusion boo xam ne kenn du xam finalement euh, fan la nit ki féete. Mm-hmm. professeur ñu ñu des s'il vous plaît ci euh, séparation des pouvoirs boobu est-ce que euh, Sénégal bu muy door a jël indépendance régime parlementaire la ñu instauré woon est-ce que le fait qu'on est qu'on soit retourné au régime présidentiel tamit du loo xamante ne exécutif bi dafay gën di euh, xëcc buum loo xamante ne ce sera en sa faveur est-ce que vous pensez pas que revenir euh, dans le régime parlementaire serait peut-être une solution Euh, régime par jeune euh, yaakaaruma ne loolu mën na saafara jafe-jafe yu ñu am. Hmm. parce que bu ñu fàtte ni régime parlementaire moo andi woon crise de 1962 diggante Senghor ak Mamadou Dia. mais c'était surtout hmm. un règlement de compte hein. waaw mais ñaari le fait le que mu am ñaari nit yoo xam ne hmm. ñoo nekk ci nguur gi te kenn xamul ba pare ñu yu bokk ñaari kuy yu bokk mbalga wala ñu ne euh, est-ce que adapté loolu tamit ñaari ñaari ñaari ñaari bopp mënuñu jël ñaari bopp def ko ci benn mbax ne hmm. waaw loolu yëpp dafay wane ne war nañu am jàngat bu ñu am ci suñu histoire institutionnelle jàngat boobu à partir de 1962 gis nañ ne avec toutes ces imperfections mais constitution 62 bi nga xam ne constitution 63 bi nga xam ne du 7 mars 63 bi nga xam ne moom la ñu euh, reconduire dans les grandes lignes mm-hmm. euh, le 22 janvier 1900 2001 euh, alors constitution boobu dafay dooleel pouvoir du président de la république mais dooleel pouvoir président de la république boobu mën nañ ko euh, mën nañ ko gën a defaraat maanaam parce que loolu moo assuré stabilité Sénégal depuis 62 loolu aussi buñ ko fàtte. donc bu ñu ñëwaatee andi régime parlementaire mën na andi ay problème gis nañ fii problème yi amoon ci diggante euh, Abdoulaye Wade ak euh, Moustapha Niass d'abord entre Macky président Wade ak Idrissa Seck ensuite Macky Sall donc loolu yëpp day créer instabilité au sommet de loolu ban jàngat lañ ci mën a am euh, régime euh, présidentielle day assurer stabilité mais war nañ ko mun a ñoŋal maanaam yeneen cër yi yeneen pouvoir législatif pouvoir euh, judiciaire ñu gën leen jox doole te loolu mën na nekk ci ay réformes yoo xam ne commission national de réforme des institutions bi nga xamante ne dugaloon nañ ci 700 milliards commission 700 euh, millions commission boobu euh, defoon na ci ay recommandations yu am solo parce que boo gisee différence commission boobu commission nationale de réforme des institutions ak assise nationale commission nationale de réforme des institutions dafa dafa conserver régime présidentiel mais ci ay garanties ay coppite autorité yoo xamante ne dana euh, permettre ñu am stabilité institutionnelle mais yeneen kuréel yi nga xam ne mooy exé mooy législatif ak judiciaire ñu jox leen seen doole seen mën-mën seen gëdd ba nga xam ne dina am euh, un effet de constitutionnalisme c'est-à-dire de checks and balances d'équilibre entre les pouvoirs ba nga xam ne mbir mi du féetewoo ci benn boor rek ba ñu jàpp ne président de la république mooy buum di buum parce que seen boobu ci wax nga ko sànq liggéey bi mu nekk chef de parti parce que li ko waral mooy président Barki Demba Ndiaye am na sorti bu mu def ca Paris doon tëkku lii di ko jege ne ñu ne sax moom warul sax àddu ci élection locale yi ndax concerné ko est-ce que loolu bu ñu ko leeralut lii aussi du way président am doole boo xamante élection bu mu bokkul tam mën na cee participer autrement moo war a yenn saa yi ñu de manière subtile pour moom battre campagne au profit de loolu dëgg la président toujours euh, booy xool bu ñu waree defee élection euh, locale wala législative la. mais forme de campagne déguisée boobu loi bi munu ko saisir parce que li loi bi di woowee campagne déguisée c'est trente jours avant l'ouverture officielle de la campagne donc juridiquement c'est possible mais sur le plan de l'éthique politique mm-hmm. euh, je crois que war na am lu ñu ci mën a def mais kenn mënul tere président de la République aussi mu def ay euh, ay ay tournée mais loolu c'est un vrai problème mais problème bi nga xam ne moo gën a jafe mooy euh, problème bi euh, nekk président ba pare nekk chef de parti mm-hmm. pense que bu ñu bëggee président bi bañ a nekk un chef de parti et un chef de coalition et un chef de clan. war na yëkkatiku ba ca ñoom waxtalu kilifteef ga. maanaam nekk ki nga xamante ne day tëdd njaaxaandaay parce que askan wi la fi nekkal. nekkalu fi rek ñi ko fal ak ñi ko falul. loolu lu am solo la parce que sinon ay décision am dafay nekk ay décision yu partisan. te auteur bi mu nekk daf ko war a euh, yëkkati pour mu gën a dooleel li nga xamante ne mooy cër bi ko ne peut m'intimider loolu aussi maanaam kenn mënu ma euh, napp wala kenn mënuma tiital wala euh, loolu dafay dafay poser problème c'est-à-dire rapport yi nga xamante ne euh, ñi ngànk nguur gi war nañ ko am ak opposition bi parce que boo yoree armée yore yore yore yore police yore gendarmerie yore renseignements généraux yore fonds politiques yi ba pare taxaw ne kenn mënu ma napp de ça pose problème c'est-à-dire que munoo yore loolu yëpp ñu di la intimider kan moo lay intimider mm-hmm. pourquoi ñu jël rapport pouvoir opposition def ko rapportu jaay doole te ña ngay jaay doole doole jang leen di jaay askan wee la ko dénk mm-hmm. du sa sa doole bopp mm-hmm. Montesquieu da doon wax ne euh, nguur bu fekkente ne dafa bëgg a dafay sax ci dëgg sax ci yoon ba nga xamante ne ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jiite euh, jàppe nangul nguur gi mu doon seen wareef Barthélémy Dias gis nañu euh, keroog bi mu génnee ak li ci am ñu jàpp sax de dañ ko dañ ko jaay doole wala leneen juridiquement ndax amoon moom li mu wax ne dafa génnoon euh, def toom am na ñeneen ñoo xam ne ay candidat lañ fare ak nguur gi ñu ngi dem di wéyal seen ay ay mbir te amuñu benn gàllankoor moom dafa jàpp ne loolu prétexte la juste rek pour mën ko indil ay jafe-jafe waaw dëgg la yoon moo tax ma ne yoon daf fi war a nekkal ñëpp. bu mm-hmm. fekkente ne dañu jàpp ne boo féetee ci ñi ngànk nguur gi yoon du tegu sa kaw wante yoon mi ngi euh, tegu ci kaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi ñoom it bu yàggee dañu jàpp ne dañ leen di jaay doole. Mm-hmm. loolu lu ñu war a moytu la euh, dans le fond maanaam ci wàllu droit. mënuloo def une manifestation dans la sur la voie publique te déclaré wuloo ko au moins autorité administrative pour mu xam. pourquoi parce que ngir dafa war a jël matukaay yi nga xamante ne mooy protéger l'ordre public mooy mm-hmm. la sécurité la salubrité et la mm-hmm. tranquillité mm-hmm. maanaam cet gi euh, dal gi ak kaaraange gi bi nga xamante ne moo war a am ci réew mi ñooñu lañ fi teg ngir ñu sàmm loolu kon bu fekkente ne dañu am ay manifestation yoo xam ne mën na troubler ordre public encore que l'ordre public est toujours plus ou moins troublé l'ordre absolu ne règne que dans les cimetières l'ordre public c'est le point d'équilibre entre le désordre supportable indispensable maanaam ordre public dañ koy négocier tout le temps. Euh, moo tax euh, dafa war a am euh, une information des autorités administratives pour ñu jël li nga xam ne mooy matuwaay yi ci war. mais règle yooyu dañ ko war a appliquer ñëpp mais bu ñu koy appliquer ñii bañal ko ñële dafay andi sentiment de révolte. aywa il est 9h dernière question rapidement pour Souleymane. professeur dañoo wax léegi léegi séparation des pouvoirs yaa ko yaa ko yaa wax wax ci sax Maroon dugg ci wax donc législatif euh, exécutif euh, ak. Euh, judiciaire mais gis nañ ni Sénégal dafa am yeneen acteurs yu fi nekk ci jeu politique bi sëriñ ci si la bokk ay forces sociales ngay dégg ñu naan ay activistes dégg parfois ay syndicats wala société civile mm. rax ci dolli boo jëlee citoyen les électeurs ñi nga xam ne ci suffrage universel chaque voix compte am ñu bëri si ñoom ñoo xam ne seen ñàkk jàng wala seen ñàkk gëm sax les règles démocratiques wala la démocratie telle que nous on l'a définie loolu yëpp boo ko boolee lan la lay inspiré comme recommandation wala proposition de réforme pour que suñu démocratie adapté wu ci réalité yooyu parce que même boo jëlee CNRI nga jël euh, tout ce qu'on na dimension boobu duñ ko intégré lu bëri misaal bi mooy boo jëlee élection locale yi am na ay bërëb yoo xam ne euh, candidats yi Euh, c'est le marabu moom moo leen di désigner est-ce que loolu war nañ ko jël en compte dans l'analyse de la démocratie et surtout dans les réformes yi ñu war def démocratie sénégalaise waaw loolu dafa bokk ci histoire du Sénégal ndax mm-hmm. euh, euh, marabout yi dañu euh, dañu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo construire maanaam ñoo tabax pouvoir politique depuis période coloniale même depuis période précoloniale parce que marabout yi nekkoon nañ dans les cours royales comme cadi comme préparateur mystique comme secrétaire et cetera donc loolu dafa bokk ci histoire du Sénégal mais bu ñu buggee dooleel république foog ñi nga xamante ne ñoom la ñu fal ñu jël seeni responsabilité mais booy xool la plupart du temps intervention pouvoir religieux dafay fekk fayitu pouvoir politique loolu mooy tax pouvoir religieux di intervenir loolu dafay jouer un rôle de régulation mm-hmm. rôle de régulation bi nag xëy na dina seral loo xam ne bu ko seralu loon xëy na mën na taal réew mi mm-hmm. kon loolu duñ ko mën a bañ mais démocratie boo xam ne avancé na war nañu mën a bàyyi ñi nga xam ne ñoom la ñu fal mm-hmm. ñu dogal ci anam yi nga xam ne merci beaucoup jërëjëf euh, euh, Maurice euh, Soudieck Dione neuf heures jot na ba tegal ñaari simili ñu ngi lay jaajëfal bu baax si ñëw bi aywa ñu dem ci une de l'Obs ak record très très rapidement